El Hadj euh, dama gis nga dugal benn vidéo ci wàllu tabaski. surtout am na solo parce que tey toog naa ci benn groupe laaj ko benn oustaz mu ni ma mënuma cee tontu léegi il faut ma dem ñu waxtaane ko ba pare ma dog cee tontu. c'est que c'est que vidéo boobu. ñun suñu jumaay ji ñu tuddee masjidu ba dugal nañ ko fa ba ma tontu ci. Euh, elage yonent bi sallallahu alayhi gis nga alquran dani ñu ma ciy tontu alquran dani wa ma aataakumur rasulu fa xuzu lu leen yonent bi wax jàpp leen wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere bàyyi leen yonent bi dafa def nii loxoom ni tabaski de ñeent yi moo ci baaxul ñépp di gis muy banque baaraam bi mu ni patt bu fés mbaa gumba xar mu patt wala mu gumba kuy soox xar muy soox soox bu bu wér xar mu feebar feebar bu wér xar mu làpp làpp bu wér ñeent yooyu la tudd ni matul tabaski gis nga bi ko waxee benn saxaab yi ni ko man de dama am xar moo xam ne nii dañoo dagg béjjén bi ma bëgg koo bañ ak xar moo xam ne nii nopp bi dafa dagg maanaam dañ koo seel ma bëgg koo bañ yonent bi ni ko soo ko soo ko bañee bañal ko sa bopp waaye bu ko araamal kenn bañ ko waaye bu ko araamal xam nga élage loolu leer na mhm. xar mu jigéen mat na tabaski mhm. xar mu góor mat na tabaski tàppaange mat na tabaski waaw kon xar mi nekk diggante góor ak jigéen ah te góor mat na tabaski jigéen mat na tabaski moo tax mat na tabaski xar mi mën nañ ko tabaski mën nañ koo tabaskee parce que xar mu góor mën na tabaski xar mu jigéen mën na tabaski mais mën nga détailler par exemple li waral ngay egg jigéen ak yooyu xar mu boo amul xar mu góor ah, nga wut tàppaange xam nga foofu ci lay tontoo sax xar mi am benn testicule ñuy wax naan xar moo xam ni benn waa yàlla la am yii ànd ak moom bëgguma tudd tur wi ndax orma ah, testicule mais mat na tabaski parce que tàppaange bi testicule yi am na ci ñoo xam ni bu ñuy tàpp xar dañu koy xar dindi testicule yi ñii tàpp ko ba mbuusum kese moo fay nekk te moo topp ci kuuy bu jigéen soog a ñëw kon xar moomu mat na tabaski wàllu nguuni ngaana bi ñëw xunsa muskil mais nit ñi dañuy gaawantu mais xunsa muskil ba lañ koy atte boo ko toppee boo attuwul dina dem ay at parce que bu amee ñaari sex dañu ni nañ xool bi ci gën a développé bu dul loolu nañ xool ñaari sexe yi fan la ciy tuure ndox bu fekkee ci ñaar yëpp lay tuure ndox dañuy seet ban moo ci ëpp quantité bu muy tuure ndox waaw yooyu yëpp ñu di ko xool ci xun saa muskil ah? ba keroog muy majeur ñu xool bu amee sikkim ñu jàpp ni góor la bu amee ay ween ñu jàpp ni jigéen la ah waaw loolu ci nit lañ koy seet pour wàllu atte miraas mais kii amul problème bu ko nit ñi dramatiser xar mi mat na tabaski parce que bu xar bu góor bi mat na tabaski xar bu jigéen bi mat na tabaski tàppaange mat na tabaski te yonent bi salaa bi muy tudd ñeent yi mu tudd tudd ci boobu alquran nag dafa tere lu mu tuddul nga di ko tudd pour mu prono pour mu prononcé ci yàlla nee na kom jëlale naa ko tudd ma ko bu leen ma ko tudd ndax su ngeen ma ko tuddule tuddloo it dama koy jëlale xar mi bu ñu xoolee liy tax xar ma tabaski pattul làggiwul feebarul lappul lu dul ñaari sexe yooyu ah dañ koy atte xar mu góor atte ko xar mu jigéen moo tax day mat tabaski. mais bu fekkee mat tabaski nag tudd na. lu mat tabaski rek mat na tudd. waaw ñaar yooyu ñoo bokk atte. lu mën rek mën lu mën tab lu mën la tudd mën lu mën la tabaski mën la tudd. xar mi na na na am at wala ñu ni foq na ñaar na doon bu mat tabaski nag élage euh, xam naa sax incha allah ci laa bëgg a def sama xutba suba ak xutba euh, euh, tabaski bi tabaski dafay symbole yàlla xutba bii passé dama ko def tudde ko duniyal muslim gis nga El yaa ngi fii ñuy waxtaane wàllu daara ñan nekk États-Unis bu ñu connecté di seetaan sunu waxtaan wi fii te ci matière lañ ko defare muy internet yàlla defal na jullit yi ñoom tam seen internet seen àdduna bopp mu jumelé ah, tabaski ak aj gis nga fukki fan yi tabaski bu weer wi teroo ka nekk màkka ñu tere ko watu tere ko dagg ay weem elage ma wax la yow mii nii la nga xame tey ni nii bu weeru tabaski wi teroo sañatoo watu sañatoo dagg say wee lu dul da julli ba pare waaw déedéet parce que yàlla da leen a parce que dafa bëgg yi weeñee di am ngeen am ko moo tax doo dagg we doo watu waaye dinga nga sangu di nga wu waaye bu arafa jotee ñee nekk arafa teggil nañ leen koor ga waaye yow woor ko ngir am yiw woowu ñee bu jógee arafa bis boobu lañuy dem defi seen tawaaf moo tax julli tabaski waru leen waaye yow mi nga xam ni nii demoo màkka dangay jënd tabaski ah, dem ca jàkka ji julli ñaari rakaa mu remplacer tawaaf boobu nga ñëw nag jël xar mi rendi ko muy symbole boo xam ni yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam mi tabax kaaba gi ak Ismaayla moom la yàlla santoon pour mu rendi Ismaayla jaamoo ko ko nga rendi xar moomu nag nga xam ni yonent bi salaa salaam nee na bu teret ji toqee rek toq gi ci jëkk a toq rek yàlla jéggal la ci sa bàkkaar yépp nga rendi ko ah, muy jaamu yàlla fi nga ko rendee ba pare yàlla dëkku koy ni mu tolloon mu taxaw di la xaar ca buntu siraat moom ngay war moo tax ku ko man tabaski wutal xar mu rëy ndax yàlla lool la wax yonent bi salaa salaam lool la wax soo ko manul nag wàcc na la elage moo wax la sama turandoo naka la tënkee tabaski naka la ko jàngalee nee na tabaski ñeent la nee bii nit bëgg na waaye yàlla bëggul nee bii yàlla bëgg na waaye nit bëggul nee na bii yàlla bëggul nit bëggul nee na yàlla bëgg na nit bëgg na nee na bi nit bëgg te yàlla bëggul mooy ki wut ponkalum xar yeew ko ca bunt kër ga naankaay kaay leen xool sama xar mi te joxu ci yàlla dara boobu nit bëgg na waaye yàlla bëggul bi yàlla bëgg te nit bëgg bëggul mooy ki nga xam ni jéem na lu nekk amul lu dul la mu tollool mu jënd am xar mu yemamaay ni yàlla su ma amoon day dina jënd bu mag waaye bii laa am waaye dawal naa ci sama yéene xar mu tuuti moomu nit bëggul waaye yàlla bëgg na bi yàlla bëggul nit bëggul mooy yàlla may la lenn nga am macha allah nga am ay million tabaski jot nga mën a jënd ponkalum xar nga ni ah, tabaski daal man ay xari trente cinq mille lay jënd te mën a jënd xaru trois cent cinquante mille yàlla may la ko nga jënd xaru trente cinq mille wala nga jënd xaru rey mu dee reyul mu dee boobu yàlla bëggul nit bëggul mu ni bi yàlla bëgg nit bëgg nag mooy ci exemple ci exemple Ablaye Ndiaye Ngalgou yàlla defal na ko sutura ak teraanga macha allah yàlla na yàgg mu ni yàlla kat may na ma xéewal te xéewal yim ma may seet naa jox naa samay sëriñ seen tabaski samay jegeñaale ñi ma ci mën a dimbali dimbali naa leen samay bokk dimbali naa leen waaye yàlla teraanga bii nga ma defal kat te lii di sunna ci yonent bi maa ngi jënd xar moo xam ne nii ci xéewal gi nga ma jox moom laa ko jënde ñu naan jënd na xarum un million boobu yàlla bëgg na nit bëgg na waaye bu Ablaye Ndiaye jëndoon xarum trente cinq mille boobu yàlla bëggul nit bëggul ah? te yàlla dani wa fadaynaahu bi zibhin azimin nee na wa fadaynaahu ñoo jote ismaila bi zibhin ci am xar azimin bu ngandle xam nga xar moom kañ la woon mooy xar mi haabil doon waate ak xaabil ca jamono yonent yàlla aadama yàlla ni jibril yóbbul ma ko aljanna te dee ma ko xontal xar mu nekk aljanna ñu di ko xont jibril di ko xont ay siècle yàlla ni mooy jot bakkanu ismail ponkalaay googu moo tax yàlla ni bis bi zebxin azimin kon élage soo ko mënee jëndal xar mu rëy yàlla yonent bi salaa salaam kon azimin dégg nga ko de wa fadaynaahu bi zebxin azimin dégg nga azimin de yonent bi salaa salaam nee na azimu daxaayaakum fa innaha ala siraati matayaakum nee na azimu na ngeen réel daxaayaakum seen tabaski yi fa innaha ala siraati nee na moom ngeen di war jéggi siraat élage ma jàngal la ci lu tax ñun la xar mi na am ay béjjën na geen bi gudd bu mu pat bu mu soox ah bu mu làpp bu mu yooy xam nga lu tax waa siraat mi ngay jéggi dañ la koy melal ni la moo gën a yëngu jaanu jaanu jaanu ñàngoor te moo gën a sew lañ waa ku war ci loo xam ne ni moo gën a yëngu jaanu jaanu ñàngoor gën a sew lañ set te siraat jahannamaa nekk ci suuf kat booy tarxiis ci jahannama nga jëm waa loolu am ay béjjeen jàpp ci nii baaxu ci élage <laughs> ah? bu yëngoo ci gannaaw nga jàpp ci gen bi waa bu xar mi pattee du gis li li li li féet ah bu làggee nag wala mu gumba <laughs> wala mu yooy ba tàngaay wi jàpp ko ah mu lutuf nga daanu moo tax da koy jàppe jàmm yàlla la nga ci man yàlla nag nee na laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha kon tabaski macha allah mu ngi noonu jërëjëf mu ngi noonu alxaaji Mbay Jóob ak Mame Ndokh bi benn émission lañ doon def foofu lañ ko def ñaar ndax euh, émission tabaski bi dugg na ci biir xalifa nag euh, ñu ngi waroon def une heure de temps def nañ une heure dix sept minutes am na yeneen kii yu tàbb si moom rek laa lay euh, wax euh, daadi tëj muy anamu sax ci mel ni Samba Kanté sama papa xalifa sa doom Samba Kanté Espagne sama xol sedd na si yow yàlla na yàlla defal la jàmm ak fan wu gudd ak wér Ousmane Dramé merci beaucoup oustaz Khalifa Ababacar Mbaye Abdoulaye Diak jërëjëf oustaz Khalifa mbay Khalifa Mbeng Khalifa jërëjëf oustaz Khalifa Mbaye Njargay Mbaye bu RTS nee na moom it mu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin amiin mbokk yi mi ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV loolu lañ indi woon fii tey jàkkaarloog Baye Khalifa incha allahu rabbi dégg ngeen eh, ni ma ko waxee ngir muñu koy may. bu fekkee semaine bi day gàtt sax mu ñu koy may 15 jours bu jël mu may ñu benn émission tabarakallahu ndax taalibi Seydi Hadj Malick yi taalibi Seydi Aboubacar si vraiment nit ñi euh, consommer sa waxtaan xam naa ni soxla nañ ko bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ni kontaan naa